arbitre sifflé waat na ragal naa ni temps mu jeex ragal naa ni temps bi mu jeex non dañuy napp Lamine waaye xam nga ne <laughs> Lamine doo ngaaka Lamine lii fii lay yem Lamine maa wax lii Lamine nee woon naa la ca njëlbeen làmb ji bu amee victoire dina ma bett Lamine gisuma ko gisuma ko Lamine barke Rasulullah gisuma jël Keweul Tidiane Faye temps bi léegi mu jeex temps bi léegi mu jeex day jeex Lamine dara du am dañ ko yokk am ministre bee toog tey lu waay nëbb tey feeñ tey ministre bi xam na li xew ci arène nationale bi tey xam nga bu fi nekkee gars yi dañuy jekkal jékkal tey nag sóoruñu woon ñëwam temps bi jeex na lu am Lamine Lamine est-ce que mérité nañ ko. ah moom kay 40 sax bu ñu ful la. waaw 40 sax de. arbitre sifflé waat na ginnaaw bi nu bëree ñaari 15 15 dara amul nekk si ñoom ñaar am ñeenti avertissement arbitre maa ngi ne leen dernière chance di 5 minutes xoolal Tidiane Tidiane a mu ngi koy <laughs> mu ko koy napp. ñi ay comédien la ñu jàppee. waaw waaw. waaye wuñu la lamp yi leer de. wuñu Tidiane gi jàpp confiance Lamine. waaw nee naa la. bu ko kéwal dina ma jaaxal. cinq minutes bariwul Lamine. bariwul de. cinq minutes bariwul Lamine. waaye kéwal mu instant bi mënoon na ko mënoon na ko taf ci yi sax mu na confiance Lamine bu yàgg. man pour maa lox loolu xel mi newatu fi. ndax ay supporteram jàmm nañu ko. ndax li war a loolu il est le plus jeune su ko wane wulee ay supporteram génn ci moom Mamadou Lamine maa wax li man buur te dëgg la Lamine un champion comme Kewel Baol sans frontière deux cent pour cent Baol wala waaw moom Kewel moo kan Lamine Jokal men ah xëy na boobu combat de waaye bii de gisuma ci ndamam Lamine bu góorgóorluwul ah astafurlah ndax cinq minutes bariwul Lamine juróom minutes bariwul de bariwul déjà bari nañu deux minutes nangam déjà xam naa ministre bi war naa wax ci groupe stade ku ku am fula la nag Tidiane Faye kewel waxoon naa la ko Lamine jeex na waxoon naa la ko Lamine ne woon naa la gisuma ko ci gisuma ci ndam le combat de la déception Karim salari njiin bismillahi ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram njiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb